xaaral ma dafa am lu ñu doon wax si booy yi yi miir def di saw fii eh def leen ndànk waay man xam naa oto bu ñu màggee ci koñ bi bu ñu màggee fii def musiba ci koñ bi defal ndànk kaawa war a taa seese ah waay kii li lay nekk fii xaaral xaaral ma dama xamul xale yi xollin boy yi kër yi mbedd yi yëpp léegi def nañ ko ay wanag xoolal xoolal lii xoolal xoolal xoolal pub yi xoolal ngandi pub yi nga xamante ni day génn si taatu mbaam xam nga ni lii bu ñu waxee dëkk bii bi defaruñu dëkk bi xoolal booru mil bi xoolal mil xoolal xale yi lii lée Ndakaaru xam nga gars yi dañuy wax te dëkk bu salte la kon biir ville Ndakaaru bi xale yi xaaral ma xoola xoola ponkal bi xoolal ponkal bi jàpp jàpp mbankalaaram bi taf ko ci taatu miir bi ñii la ñuy def jàpp miir bi yëpp saw miir yi yàq miir bi xoolal léegi xam nga lu may def eh eh, eh caméra kay kay kay kra kay kay kay le sorcier des caméramans xoolal bala may def rentrer dans les colobane pour xool jakarta maan yeeg chauffeur yeeg apprenti yi xoolal gis nga Sénégal xam ngeen léegi affaire de matin yi léegi moom mooy nekk fii xoolal mbedd yii yëpp gars yi def nañ ko ay foos ay douche xale yi bu ñu bëggee sangu ci mbeddi yi la ñuy sangu saw xoolal booru miir bi xanaa xamu ne sawu góor baaxul sawu góor dafa ka saw saw góor moom moo raw asib nga jël fukki butéelu asib nga sotti ko saw góor moo ko raw léegi so loolu soof la leen de kon ay ginnaaw kër ay puub ay affaire yooyu noonu la ñuy def si taatu miir bi kon léegi xool leen de du ma wax li nga xamante ne du ma décortiquer de jinne caméraman bi li leen di wan da ngeen koy xool ku ciy lek uba lekk bi ba affaire bi jàll koo xamante ni yaa ngi def leneen loo xamante ni ay nan la affaire yooyu ubal ba affaire bi jàll sabu li mu lay woon dara nekk loo xamante ni voilà l'homme de tous les temps c'est Pape Makhtar Nass aca leen mi ñu def les rentrées dans les dans les Colobane dans les ñu ñoo koy ñu xool fii lu nekk ngay gi xoolal booy arrêté borom pousse ñoom ñooy nekk fii borom waaw chauffeur yaa ngi ni chauffeur yaa ngi ni chauffeur yaa ngi ni gentleman alors naka waar na school Voilà, voilà, ici c'est Colobane, ici c'est fait rentrer dans les Colobane, voilà. Et le sorcier des caméras, caméraman. Voilà, gis nga ma la waxoon. Euh, nee la c'est pas Takarna, l'homme de tous les temps qui fait les bonheurs de Fouta ici à Dakar pour faire régler les situations de Dakar. Euh, boo yi nga xamante ne dañuy nekk di dafay affaire de bande yaagal yooyu noonu tey ici c'est fermé tout c'est jeex avec la 221 TV la chaîne de l'indicatif. voilà lépp day leer bul teggi tegal sa loxo ñu dugg dugg def dugg ci ñu dugg si biir moytul mbëkk père ñu dugg si biir voilà salaamaaleykum waaw père biseel rek biseel rek kontaan naka mu yaa ngi cool yaa ngi nice quoi foofu la de hey doom may benn ndox ma naan eh damay ñaan de naa jënduma de damay ñaan de sa anndi so o kiima hannde so a hoddi galle mi a fiyay hannde so a hoddi galle e fiyay hannde e eh, jantal men mon frère beganala grand frère nakamu sawa nañ def salaamaaleykum sawa yow di sama mbokk la kii bu xees bi sama mbokk la sama mbokk yi ne sana xanaa salaamaaleykum yéen ngi nos gentleman sawa yéen ngi cool quoi hey bro man yaa ngi cool salaamaaleykum yéen ngi nos soo jullee ñaanaa leen ma dégg nga fasaale bay kara boy bi gentleman la kii rapport la ñoo nekk ndoo woon daara ji famille yi ñoo nekk ndoo woon foofu daara ji yi boy boobu rapport lay def salaamaaleykum yow hey yow jakarta bi sama jakarta bi nga indi fii pour lan la xam nga jakarta bi lay wër yow lan moo tax nga nekk bandi yow booy yow xoolal gàddaay ak kolobaan fi mu nekk ah yow seen affaire yi mënu leen ko bàyyi yéen jakarta maani comme kolobaan fii kolobaan dafa wóor kenn du ko sàcc dafa wóor sa a ñaaw yow yaa yàggal nañ sol bon bandi yàggal bi nga doon waaw ah, yow ngeen di kolobaan kolobaan macha allah daa wóor ah daa wóor la waaw ah yow xam naa gentleman nga gentleman kon gentle gentleman yi booy bandi yi li ñuy def comme sama copain bi xam naa yow doo def yooyu. non man man du ko def. ah doo def léegi dafa am benn affaire bu ma lay laaj léegi 30 jours. Ah, yaa ngi yaar yaa moom Jakarta bi. léegi boo xëyee chaque jour ngay jël dërëm di ko denc di denc dërëm ba 30 jours yi mat ñaata lay doon. non boobu moom sama boobu moom mënu ma ko calculer yow. <laughs> sama copain nee na mënul calculer un 5 francs ba 30 jours yi. yow yaa ngi réer da nga mën calculer loolu. <laughs> non non mënu ma ko def. non non maa ngi encaissé ko non <laughs> merci beaucoup. booy dama may café ma daanaa. rokataakam eh maa ngi joxaat retour maa ngi ñëwaat. salaam. non baal ma ñëwaat sama gars maa ngi ñëwaat ba aller retour boo gis am na retour. salaamaaleykum salaamaaleykum. ça va. salaamaaleykum. salaamaaleykum. e eh, badoro gentleman sowa yayboy dof may ben banana a rokkata kam banana goto a rokke banana goto a eh? haw mbeɗa andi a rokkata kam banana goto goto tan min nawa mi nawa a ah, wadde somi artima a rokke goto eyyi eh, wadde ala probléme voilà gentleman salamu aleykum boy lan nga may hoole yow lan nga may hoole lalla ha lan nga may hoole lalla lo may hoole sa kanam way eyi defal ni yaa ngi cool yaa ngi noos eh, jantal bi laa doon wër kii eh, boy bi kii kii boo ko xoolee sax xam ni bokkul ak eh, boy yi nga xamante ne dañuy nekk di taxawaalu buujumaan i nekk ci mbedd mi boo ko tak bëgg lu baax xam lu baax may doomi géwal pire kenn du ma yeb si dara kenn kenn du ma ñàkk fayda si dara liggéey jaamu yàlla bu fi doxul sabar yaa ngi ne ak bongo yi dañ koy waxtaanee ba mu neex ngéwél yëngu ku la xool xam ni da ngaa saf waay waay ñun ñun ñun ñu li lañ li lañ am judd ci ngéwél teraanga aduna bët la judd ci bitub ba ba feddale coow waaye paasu fam waaye ay misti yu waay waaw mais tabaski baa ngi ñëw de tabaski bi ñëw na de. waaw tabaski bi ñëw na nag dañuy ñaan yàlla xam nga yàlla suturaal doomu aadama yi comprendre nga ñu am xar uh-huh. yaa ngi dégg te ku nekk du ko dikkee dara uh-huh. xéewal gi yomb doomu aadama yi trop yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def waay waay am nga soxla amaguma soxla nag waaye nag maa ngi ah, maa maa ngi faj sax maa ngi nañ ko wax si suuf rek bu mu jëm kaw waaw waaw <laughs> waaye léegi dafa am benn affaire may laaj comme léegi yow eh, cinq francs dërëm ngay dajale dërëm Euh, un jour deux jours trois jours quatre jours ba mu nekk trente jours léegi ñaata lay nekk. may dajale ay dërëm ba ma ay dërëm dërëm un jour deux jours trois jours ba mu nekk trente jours ñaata lay nekk. ba mu nekk trente daa mel ni booy xool boo xool boo xool fanweer la de wala cent franc rek wala cent vingt cinq. ah yow jàppaloo fenn ah waay wadal focalisé dama bëgg nga foo taxaw kay. ñaar yooyu benn la ci. ah taxaw taxawal. waay kon taxaw naa waay. foo taxaw waay yaa ko laal waay. <laughs> sama dama am doom boo xamante ni dafa mënul dafa mënul namp ci weenu yaayam. Ah. kon biberon laa bëgg doo ma jox benn biberon bi ma yóbbu. waaw naa la jox benn ah, waaw naa la jox benn waaw benn doo yëkkati benn nga jox ma nga ne ma naa la jox <laughs> affaire jaay kan nga fay def xanaa yow Saloum Saloum. waaw ah! barki Seck xoolal. c'est que dafa Saalum Saalum kon loolu moo fu ma leen gis rek dama leen di jaay bi mi ngi dox sant yàlla bu baax a baax muy avancé waaw yéen a ngi yëg seen bopp waaw waaw ne affaire bi mënul avancé waaw dëgg la tey ñun ñi nga tey ah dañu génn dëkk ñu ñëw fii tey di wut si kon ñun chaque jour war nañuy nekk di encaisser pour lu yóbbu dëkk bi waaw dëgg la affaire baa tabaski bi ñëw na waaw ñëw na tabaski bi. waaw maa ngi am nga xar déedéet amagu ma xar. <laughs> am nga soxna. waaw am naa jaww ah macha allah wala ma mag sama copain sama copain am sama copain amagul sax. hey <laughs> eh, hey eh, eh, hey hey. acca acca acca acca ma yow célibataire bàggu hey avancer ya acca acca acca acca acca taxaw naan célibataire bàggul ay yow voilà cag cag lan da nga da nga may yóbbu xaar ma foofu ci angal bi ma ñëw. la la la la salaamaaleykum. Fall Fall ziar naa la de Fall maa lay ziar MC Tuku ay sama koñ ak sa koñ <laughs> ay ay ak sa ay yow xamante ne ma hey man kay boo ma wowul sax damay ñëw ça va. jërëjëf defal ndànk. yow yow xoolal yow gis yow da ngay bandi bandi lu yow yow yow fan nga toj yow ba takaw ma rombal ngay aussi di takaw naan foofu. non mais ni nga sant dafa rafet. ah merci beaucoup waay merci beaucoup. toj naa gàddaay toj Colobane waay merci beaucoup. yaay sama copain yaay sama doomu ndey. 221 TV. 221 TV. voilà la chaîne de l'indicateur. jël nii quoi. waay kon may ma dédicace. may ko cag-cag yi. yow tur bi. waxal waxal waxal waxal Samba rek. waxal Samba. Samba dafa Samba dafa yaatu te xam nga boo nee nii yëpp Samba ngay jël mais dangay focaliser fenn ñu xam ne Samba bii wala Samba bee kon Samba Samba rek xam nga Samba dafa yaatu de. mais yow loo bokk ak Yoro Yoro boobu di seet ah Yoro Yoro lu ngeen bokk. Yoro dem nañu ba di bëgg bokk ndey ak baay de kon bokkuñu ndey ak baay suñu ñaari yaay yi ñoo bokk benn baay. mais ak après doomu Yoro bi lu ngeen bokk yéen ñaar.